ayca ñu tàmbale ko ak Walfadjri quotidien Abdoulaye Bob. ma ngoog xëy sampap laaj ndax longo mun naa dox ci diggante parti socialiste ak taxawu ndakaaru bu xalifa Sall ci jamono joo xamante ne ñoom ñaar ñu ngi xool naka la ñuy joyantiwaate parti socialiste Mamadou Sy Albert jàpp ne dina jafe lool ndax boole PS ak taxawu lu mun a nekk la waaye nag la koy togg ba mu ñor dina doon lu jafe lool ndax doxalin geek gis-gis bi doonatul benn mu ngi ci yéen a kii di Walf quotidien réew mi quotidien réew mi euh, quotidien xëy wutali tefes yu ndakaaru bokk na ci coowal suuf ga fa am nguur gi jël na dogal dakkal bépp chantier bépp euh, njaayum suuf ak tabax ci littoral bi yéen cabinet yegguñ ca yemuñ ca bokk na ci euh, direction générale des impôts et domaines génnee na ab bataaxal guy wane ne daanaka ci zone yu bari tere nañ fa tabax ak yeneen ak yeneen. moo xam ci Ndakaaru ak Saint-Louis jaar Lac ak Mbour ak Thiès mayatuñu kenn mu tabax. ci anam yu dëppoowul ak yoon njiitu réew Bassirou Diomaye Faye ne lam ca euh, sàkku mooy lam ca jublu mooy euh, càmbar mbirum suuf ci euh, suñu tefes yi le Sud Quotidien Sud Quotidien génnagul ci coowal suuf googule mu xe mu soxal domaine public maritime Bassirou Diomaye fay jël na matuwaay ci war njiitu réew mi ngi xamle ne lu aju ci lotissement yu jaarul ci yoon moo xam ci waax yi ne fii ci Ndakaaru Thiès ak mbuur ak Saint-Louis bokk na ci nguur gu bees bi bëgg na ca soobu ci sànce yu mucc ay bi yoo xamante ne bëgg na tefes googee delluwaat ci askan wi. Le Quotidien yéene kaay. Le Quotidien Mouhamadou bi tey euh, bokk na ci euh, procédure euh, domaniale jëm ci wàllu foncière yéene kaay bi di ñu xam lekk ña ca war a loru daanaka ci jamono ji nelawatuñu ba yandoor ñu jot a ci peggu géej gi ci anam yu dépôt ak yoon moo xam euh, ca zone bu Ndakaaru Thiès ak Mbour ak euh, Saint-Louis reportage gu yaatu nag moom la yéen kabi di Le Quotidien xëy amal ca monde filaawo ne ca Géejawaay filaawo kenn seenatu ko fa daanaka euh, ay tabaxak ak i lañ fay seen ci jamono ji yor yor yéen kaay yor yor bi xer yooru nag fale ca Kër Moussa ma nga ca diwaanu Thiès ca woon suuf nga fa am ab société immobilière SNV SNV ma ne ci jamono ji dafa bëgg a gàllankoor domaine agricole euh, QV euh, euh, QV QVS ba fa ne yéen cabinet loole nag jur na coow ca gox ba ba tax na ñu bëri ci askan wa euh, di ko joytu nañu bëgg a nërmeele wàllub mbéy ma ca googule euh, diwaan. critique yéene euh, kaay critique Mouhamadou Biteye mode fast track bëgg na gaawtu liggéey bi Bassirou Diomaye Faye ca la jublu ndax bëgg na daal la fa li fi jagutoon ca nguurug Macky Sall gawoon mu fexe ba joyantiwaat ko ba mu mun a tegu ci yoon ci anam yu mu ba sas na liggéeykat yi ñu xëy ci waxtu di wàcc ci waxtu waaye itamit bëgg na gëstu lépp lu jëm ci wàllu suuf ci mim réew rawatina suñu tefes yi ci jamono joo xamante ne nag eh, ñi ñu jot a jéggal ci fitnay politique ya woon diggante 2021 jàpp 2024 eh, eh, yenn cabinet ñooñee bëgg nañu yoon def seen dof liggéeyam ci googule dossier ba tey nag dossier Barthélemy Diaz maire bu Dakaru bëgg naa giseek njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye Dakar Times Dakar Times xëy wàllu koom document jëm ci wàllub budget ak i tamit 2024 2026 lañ ci jotoon xayma moom FMI jàpp ne projet Sénégal émergent fa lañ ko tënkoon ndax bi yoon duñ ko mujjee bàyyi noonu ndax njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am daañu wéel bi le projet euh, Sénégal émergent ndax dañuy soppi doxalin gi mu ngi ci yéen a bi di Dakar Times. le mandat le mandat mbirum euh, BTP euh, suma mañu ne ab entreprise la gune fii ci réew mi jot naa mbaxus nag ci nguurug Macky Sall ga woon daanaka ma nga doon cëru ci ay marché yoo xamante ne du fay taxe du fay impôt Euh, fisc bi mun na ko nërmeel lu toll ci ñetti téeméeri milliards moom lañ ci ay séntu yéen kaa bi di la mandaane ku yoboo séntu ko tey euh, ca Guinée Bissau falay ak ji moom njiitu réew mi euh, Bassirou ay fay fas yéene diisoog njiitu réewum Guinée Bissau ay ca ñu wax ci l'évidence l'évidence mu ngi ñu dégtal ñaari agence yi agence sénégalaise de promotion touristique ak Air Sénégal International ñaari këru liggéeyukaay yi la daanaka ñu ngi ci sukuraat seen liggéey demeetu ni yéen kaa war nañ leen a Diomaye Faye xool naka lañ leen di joyantiwaate euh, tribune yéene kay accident yu métte métti am ci circulation bi ci lu matul daanaka ñetti euh, fan lu toll ci euh, fukki doomu aadama ak ñeent jot nañoo faatu bokk na ci juróom benn fukk jëlee ci ay gaañu gaañu yéene cabinet ba ca mujj mooy accident gi am démb ab tata moo nërmeelu ca pont bu aan ba am ku ca ñàkk bakkanam lu ëpp ñaar fukki doomu aadama jëlee ci ay gaañu gaañu yu métte métti yile accident kañ lay jeex kañ la fi dakk docteur Abdoulaye Bousso moom la xëy di laajte ci biir yéen a di euh, turbine source a euh, source a ne bu weesoo sax accident yi la jafe-jafe ca Dakar dem dikk euh, wuyowul turam démb woto yaa gaare liggéeykat ya demuñu dëkkuñu di ñaxtu ci seen liggéey ak nañ cay cërale yenn ca liggéeykat ya di leen recruter ci anam yu dëppul ak yoon ci yaama neex ba tax na ñaxtu googee sax jur na ñu yàqati fa lu toll ci ñaar fukki bis ak ñaar ba ca tegu nag yàq googee nag buñ ko xaymaa ci koppar am mat na lu toll ci téeméeri téeméeri eh, million ak eh, ñaar fukk mu ngi ci yéene kabi di eh, source a le soleil Dakar bu Medina Gunaas mi doon tey seleb yoonu jullit ñi yéene kabi ne du ñu xamle ki sos googule Dakar El Hadji Mouhamed Seydou Ba lay wuyoo yéene kabi ne jot na samp sax lu toll ci juróom benn fukki dëkk ak ñeent Euh, stade yéen kaay. ma ngoog euh, Ligue des champions demi-finale aller Bayern ak Real ngoonuk tey ji lay doon bidéew la ñu séentu ci euh, googu lépp jongante. ñu jeexalee ko ak suñu lamb. suñu làmb ëllëg premier mai ci weeru mai maanaam premier mai benn fan ci weeru mai la ñu fas yéene géewal ñaari mbër yi la. Eh, roi des arènes ba woon euh, Bombardier fas yéene jàkkaarloog euh, Franc mag euh, ndaw ñoo fas yéene bëre ci arène nationale pronostic Mouhamadou bi tey. Hmm, Franc jël na lu diis de. <laughs> Hmm, Bombardier diis na de ah. Bombardier. mais 52. waaye comme franc gone la moom itam. waaw waaw. Hmm, na waar daal. ah xam naa ne eh, Bombardier ndax sidit waa nga fa doole gaa nga fa. waaw mii nga xamante ne mu ngi ci digg ndëndam. Mhm. Eh, combat gi daal ku yaboo séntu xel mun a daan ci bile combat. ku ci ëpp xel rek mun nga daan. Jokko jël Abdoulaye Jokko jël Fatou.